asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 20 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi nag tey sunu lamb fa la nuy xëy ñëwati yëglikaay bi xëy na ñëw ci ki nga xam ne moo di Modou Lo Modou Lo nag yëglikaay bi wan nañu ko muy ree wala muy muuñ jël couronne roi des arènes maanaam mbaxanaam buur ba tegal ko boppam ca bopp ba dal ko téye ak ñaari loxoom yëglikaay bi nag nee na ndax Modou Lo mii saison bii nu jëm di 2020 bii est-ce que Modou Lo dana ca bëre ndax nag li tax yëglikaay bi day nee na loolu moom ngir mu bëre ca wóorul li ko waral sunu làmb nee na jàppal bu dee Balla Gaye la mu da koo génn ca course ba Ama balde muru da koy ignorer kii nga xam ne nii daal mooy Modou Lo moom boo bëggee dégg dëgg 2020 jii moom ah, est-ce que des na ko ca gis akay bët ngir mu bëre loolu yëglikaay bi moo xëy tey di ñu ko wax premier sa trois des arènes bii daal est-ce que dana wóor ka nga xam ne nag mooy Balla Gaye numéro 2 moom yëglikaay bi di sunu làmb wan nañu ko mu nga sëqal njañ ya yooxu ba sës sunu làmb ne na day Eumeu seen bañ na Balla Modou bañ yëglikaay bi nag nee na est-ce que ñii ragaluñu kii nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 est-ce que du dañoo ragal dugg fi mu nekk nii ci ay bagaasam wala boog li nga xam ne nii moom moo di mbojam Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ca mooy ka tëggoon diggante Modou nag ak Ama ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène Modou Lo Eumeu Sène Moustapha Diop ma ko tëggoon yëglikaay bi nee na Moustapha Diop mii comme ñu ngi naan perte naag pertul ndax Moustapha Diop moom est-ce que dina dellu ci làmb ji déwén yëglikaay bi suñu làmb xëy tey dinu ko wax Eumeu Sène moom fi mu nekk nii ak desam ci làmb ji yëglikaay bi ñëw na ci ndax nag dafa jàpp ne moom day dañ koo jàmm balub tànk moo tax yëglikaay bi daal ñëw ci ak desam wala ak demam Farouz moom li leer ba leer buy buy dem itam ci lamb ji bëri fi mu nekk ni moom ci lëndëm kiris la nekk yëglikaay bi du sunu làmb moo xëy tey wax ñu ko la ko waral nag mooy defet yi nga xam ne nii day teglante na ko yëglikaay bi du sunu lamb xëy tey wax ñu ko ginnaaw ba ko lan 2000 daanee ñun déet ne waaye ca lay yem bërki dem doomu dàngu daan ko fa nga xam ne mooy ca arène ba nga xam ne mooy arène nationale ab xale moom boo xam ne nii géejawaay la dëkk ñu naan ko Jackson moom day daa mel talent la boo xam ne dañ bu làqatu la ba pare nag mu ngay wane boppam ndax yëglikaay bi ne dañ mu ngi teglante fi mu nekk nii ñetti ndam yu leer nañ nañ nañ moom mii nga xam ne mooy Jackson nekk ca école de lit Njaga Saar ba ca Géejawaay yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax keneen koo xam ne moom yëglikaay bi dañu koo won muy ab xale nekk ci écurie Fass muy Pape bu xees Pape nag bi tey moo ñëw séq moom waxtaan ci rubrique bi nga xam ne moo tudd Leewtoo avec Pape nag la mu xam ne daal ci combat bi ko gën a marqué day nee na combat Papa Sow la ak Santa Ñëng moom daal nee na combat boobu du ko fàtte ba mukk mukk mukk yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw boo xam ne nii moom yëglikaay bi wan nañu ko mooy lengs ba nekk écrit Fallaay Balde moom nag na pare na ngir giro seeraas wala seex super jamono ngir nag fas yéene moo ko tas ci dëkkam di marloj day li ñu coor nangu na ko reconnaître na maanaam boog nangu na la mu def waaye nag wax na itam la tax mu def ko sunu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax leneen loo xam ne yëglikaay kaay bi da caa ñëw muy ay combat yoo xam ne jàpp na ne day ndax saison 2019 jàpp bi ñu jëm warta mën a ne yëgli bi ne na força bi nekk écrit face dëkk ca barañi tay bi nekk écrit tay dëkk ca ndaayaan ne na ndax loolu dub combat est naa ne booy bawal ma dëkk ca bawal nekk écrit ngor ak ki nga xam ne mooy caat bu booy bambara ma dëkk fa nga xam ne nii moom moo di ah jàppal ca dëkkab Siteu ba ba nga xam ne nii day mooy ca île du Saloum ya yëglikaay bi ne na ndax moom itam combat am ak booy bawal mante ne maanaam caat ak booy bawal loolu la yëglikaay bi xëy tey ñëw dinu ko wax mu mel ne ki daal looloo fi ñëwoon tey ci sunu làmb Taala Njaay kon mbokk ñu suivre ci Leewtoo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah, leen bëggee di leen baax leen balu àq comme ni ngeen ko xamee rek te di leen baal di ñaan yàlla buur bi yor njéggal ak yërmande mu defal ñu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp ak fu ñu mën a ne si àddina bi tey nag gis nga sama jigéen yi xam nga rek kiiw ñu dañoo xaw a am lu leen ti tuuti moo tax gisu ngeen leen muy Aïssa ak Ndeye Coumba Fall moo tax nag tey mu ñëw waxtaan ak yéen tuuti rek li may waxtaan nag mooy rek maanaam Lo bi ñuy wax ne ce que wóor na mu bëre son personnel mu bëre ndax nag na Ama ak Balla Gaye numéro 2 moo tax yëglikaay bi laaj loolu waaye ñun liñ ci mën a wax mooy que rek Modou Lo moom fi mu nekk nii c'est le roi des arènes ah comme bëri na nag comme ni mu ko wax moom ci saison bi ñu génn nii ñaari combat bëri na ak Balla Gaye bëri ak Eumeu Sène loolu defe naa lu diis la kon nag ñuy xool ndax saison bi di ñëw incha allah rabi yàlla nañu ko fekk tal ndax dina wàccaat ci géew gi loolu ba tey mooyoo cëggal bu yema ah. mooy choisir comme ni ñu koy waxee a dégg léegi li kaay baa ngay laaj ndax Balla a bëri moom est ce que ah, loolu ñu xam daal mooy ci mën a dégg ñoom ñaar ku ci ne bëri nga ak Balla Gaye yoon dafa naa nag koo bëri ñaari yoon est ragal ko war na faa mën a am xëy na bu ne duñ ñu taxawee duñ bëri ak moom xëy na am ay raison yu tax waaye li ma xam daal mooy ñoom ñooñu ñëpp lamb bool na leen Balla ak Eumeu war nañoo mën a bërewaat label troisième combat moo dóog Balla itam war nañoo defaat label bu troisième combat lépp mën a parce que lamb la te ñoom ñëpp ku ci na sa carrière jeexagul yaa di ko na wala perte yàlla daal mooy mu del si parce que ñoom ñooy béyew lamb ji loolu daal la combat yi ñuy wax tamit ndax mën na ne Forza ak Tyson lu war a mën a nekk la actuellement ñoom ñaar ku ci ne yaa ci lancé bu baax a baax a baax te itam ay bërikat lañ ay xeexkat lañu di ay doomu li bu pire caat bu booy bambara bu jonwaar ak ki nga xam ne tamit moom moo di mbër mi nga xam ne nii moo di booy bawal bu olympique dangor dëkk ci bawal tamit defe naa loolu combat waroon nañ mën a nekk ndax booy bawal ku ne gis na ren ni mu defante ak marle waaye caat ku ne gis na tamit li mu def armée bu benn baraab kon defe naa loolu tamit ay combat yu possible la di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm den ne rek Babacar a ngi kontaan ci soppeem yëpp yëpp fu ñu mën a ne rawatina soppee Leewtoo bi fan si këram Leewtoo bi 100 pour cent Babacar bi du ma leen fàtte ñoom grand mas ci Joal ñoom grand lay ñoom Cédric Marcelin Ndour yàlla fa saaxoor jiga borom reefan xam nga ñoom Baye Sall depuis Paris Awa Diop du ma fàtte kenn nuyu naa ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm moor boobu maa ngi nuyu di nuyu ki nga xam ne tamit mooy jib seen ca Pajar seen ak doomu ndey petit borom petit di nuyu ñëpp Mass maa ngi koy nuyu nekk fii ci Colobane di supporter Modou Lo moom tamit maa koy dégg bu baax a baax ñoom xali Rosu Ndiaye tuuti yaay Sarr Fatma Fall fàttewuma kenn tabax ca Norvège Gora Seck nuyu naa képp ku nga xam ne daal yaa ngi bëgg li ñuy def di la ziar di la ñaanal jàmm kon su jamono mention spéciale yal na yàlla def jàmm nawet bi comme ni ma ko waxee rek ni ñu ci duggee ci bismillah rahmaan rahim yal nañ ci génn alhamdulilah rabbil na ci yàlla def barke barke yonent bi mais di nuyu sama maire commune maître Pape Sène du ma ko fàtte di ko ñaanal jàmm sama mag sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le maire di la ne yàlla na yàlla gën a yokk taxawaay bi gën ko dëgëral barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax itam yaa Babacar moom euh, defe naa samedi dimanche la bés doxu fi kon mention spéciale maître seen maire na bu président comité Sénégal des droits de l'homme Talla Ndiaye kontaan ci ñëpp ñaanal ñëpp di jàmm docteur Macoumba Diouf du ma ko fàtte moom tamit di meeru la mel ni sama mag sama xarit nuyu